asalaamaaleykum mbokk internet yi ñoo ngi leen di nuyu di leen jaajëfal donc tey waa Allo Dakar TV ñoo ñëwoon seet si ki nga xam ni mooy Yoro ñu xamee ko ci artiste international di ànd ak woykat yi di leen feccal ñu bàyyi ko mu présenté wu. allo allo man la Yoro danseur international waaw maa ngi ni waa Allo Dakar ñoo mu pour ñu war waxtaan euh, si projet yi ak affaire euh, musique et tout quoi. alors Yoro ñu xamé la ci walum fecc ñu bëggoon xam say jaar-jaar lo jota def ci fecc bi. waaw euh, man Mauritanie la ma ngi ñëw fi 2000 laa ñëw Sénégal bi mu ñëwee Sénégal métti woon lool parce que balaa ñuy bi la xam il faut nga grimper tu vois après ma dem nekk si Baaba Maal fecc naa Baaba Maal feccal na fii mak fay feccal na sara presque ñom ñëpp feccal na leen feccal na ñëpp parce que bo ñëwé kenn xamul fu nga bu fo dëgg rek da ngay daw dem fa gaay pour gaay xam la mais légui grâce à Dieu ma ngi remé ma ngi sant yàlla bu baax gaay yi dem ba xam ma xam ma ci Salam Diallo ma ma jóge si Salam Diallo dem ci pap Diouf. d'accord ñu bëggoon xam ndax voyage nga ak artiste yooyu dem à l'international sur le plan international ndax def nga fa dara.

quoi depuis quand nga commencé à ndax suis xamanteni dang ko jang wala dang ko talent wala. Ah, euh, depuis suis la won quoi parce que man dama don jang école en même temps encore euh, suma ma paré école man dama ba bëgg rek buy naan yor la classe mu suis classe bi léegi def lu leen neex ñu xam nga encore encore mën football su ma ñëwee ñu am ñoom récréation wala ñoom école football wala wala léegi su sama suñu classe bi wala football classe bi suñu maître yi man lay woo naan ma yow j'ai confiance en toi il faut marquer des buts xam tu vois mais bon euh, fait bi moo nekkoon comme sama sama bopp quoi tu vois léegi ma nekk Mauritanie di feccantu noonu ay fuural gañe naa lu ne foofu tu vois et après léegi bi ma déggee nag ba mal ñëw Dakar ñëw ñëw Mauritanie di way ma ñëw di ko feccal xam fecc bi nek sama bopp

xar day weesu mbote feccal na artiste yu bari fecc na clip yu bari après euh, un moment est arrivé ma toog kër Diouf di woyandu pap Diouf deug sama baat naa ma yaxoo yaa ngi foy lu graw da nga am octave da nga am voix bu garaaw boo góorgóorloo di nga dem ma ko mais ma xalaat ko pourquoi pas am voix mun na woy mais pourquoi pas légui bima démé Paris après sama xel dem ci ben affaire bo xamni ni Bercy Pape Diouf.

ci peux feex ma ko bi ñu tek ma def ben morceau boo xamni ne Bercy la tudd ma def hommage à Pape Diouf woy si yi ah bon Bercy Pape Diouf. à Paris waaw. Bercy Pape Diouf bu mu amee gars yi dañoo toog ñii ki man xalaat lo man ne man pourquoi pas mënu ma génne benn woy boo xam ci Bercy la ko woyee. donc da nga cartonné Bercy Pape Diouf. waaye yow Bercy bi dama ñëw waroon playback foofu. après mu am boo xam ni dama amoon ay nit. non da nga ñu si may da nga ñu si may pour ñu. la ci may kay mais xaaral. la ci may ma nekk ma ne. ci biir si na lool ana Pape Diouf génération conscient jóg leen jàppale seen doom Pape Diouf woote na Baye Mouhamed Chéri bébé baas doomu ndey njawa ana ñambe Pape Diouf woote na biir si ci jóg leen ñu foo dina xumba dina jaagaan dina neex lool ey Pape yaay borom Bercy kon tojoon nga fa tojoon nga fa ma gis ni booy woy dafa am benn style boo xamante ne da nga koy génnee bu rare ñu bëggoon xam nan la nan nga koy def waaw loolu moom euh, yàllaa ko def ci man xam nga rek ku ne ak say feem quoi man sama feem mooy fu mu neex laay géet xanaa wax ji nee na xeej <laughs> non macha allah jombi ngeen tag tey ngeen gis lu mu mës gis si àdduna man maa yexoo le danseur le plus rapide du monde. kii mooy yexoo borom l'international. bah oui le danseur le plus rapide du monde. amul kenn ku koy nuyee. ah, ah bon bah oui. loolu mën nga ñu ko certifié doo ñu may benn pas de danse fii ñu xool instant bii xam nga su ma defee nii nani, nani, nani, nani, nani. nii naan nii oh. oh, oh, oh rapidité bi la. mais tej nga fi yoro. waaw lool la xamna naa loolu fu mu dugg toj fa yalla ko def. faire. ndi ay doom barke bay mais yoro kan ngay faral di liggéey en général. kan ngay faral di liggéey. waaw en général je travaille pas Diouf. la plupart je travaille pas Diouf mais bon des fois il y a Salam tu vois on se connaît ça fait longtemps des fois il m'appelle euh, Yoro j'ai envie de faire quelque chose je vais à Cristal je vais salir, je vais ça on y va après voilà ma dem quoi ko tu vois adduna woon amul solo dem jàppale Vieux Mac Faye dem jàppale tu vois on est là quoi. y a eu nañ la ràññee nañ la si milieu showbiz. bah oui euh, parce que depuis 2000 je fais presque 19 ans 19 hein, ans de l'art bon su ma xamul kenn dootu xamati tu vois après voilà Comment may gis moom si Pape Diouf nga may gisee wala des fois si Salah. léegi yow tey ma bëggoon xam yow ban genre musique ngay def. Wa man léegi afro trap beat lay def afro trap lu afro trap. Oui, mais afro ñun mbalax lañu tam di dégg ñun xam parce que au niveau international tu vois que je dis au niveau international so bëggee gis gars gën la xam da ngay def afro trap léegi boo au Sénégal nga xam da ngay tofé deux mois nga war a ben son bo xamni bu taraj bu neex bo xamni ni ci boole ak olof so si mëna ci naar nga duggal ci naar. kon da nga gënël way lu sama def ko lu graw def dama euh, quatre sons bi bersi la. beneen bi sama yaay la beneen bi mama love la beneen bi sama yaay moo tudd mama love beneen bi tukulóor la delloo njukkal Baaba Maal ah. beneen bi mbëggeel. lu tax nga décidé delloo njukkal Baaba Maal. waaw boo gisee ba delloo njukkal Baaba Maal moo ma gën a moo tax ma dugg ci aar moo tax ma jóge Mourtine ñëw ba fii. raconté ma sa histoire ak Baaba waaw Baaba bi ma ñëwee fii ma nekk xale bu ndaw. ma naan ko ñu ne ko am na benn booy bu jógu Mourtine mu ne ah kon fecckat bi jógu Mourtine moo ñëw fii mu ne waaw mu ñëw toog waxtaan ak moom ma ne ko mu ne lu indi fi ma ne ko li mu indi fi mooy damaa bëgg yóbbu samay mag moo tax ma ñëw jógee def ñëw di def aar di fecc lu ma am yónnee ko sama yaay mu ne aboo ah, ma ne ko waa ci son boobu nga décidé rendre hommage kii mooy artiste bu mag Baaba Maal. waaw moo tax ma ne xayoo dem ngal pulaar pulaar ko dem ngal. Jambaro, hayo demgal pular pular nde leƴƴi ne ya yakar golle men buli yilitade yonta men mbeɗa hale pular ko ndaro den, o wina bonangal chalo den ko ɗemgal heewa gandal ko ɗemgal heewa cuusal ko ɗemgal heewa pinal ko ɗemgal seydu nuru tal ko ɗemgal baba baydi mal no nekhna na nekhna na na nga fi yeho tagn nga fi waaye yéen lay wax ñu lay seetaan say fans. waaw gars yi maa leen di gërëm di leen bëggee bon tranquille bientôt di ngeen gis loo xam lu ngeen mos a gis si Yoro waaw asif ah, du lépp nañuy wax nag ci waa waaw. def en stand dafa am benn clip boo xam ni moom laay dem eggali Paris clip bi mu ngi tudd Mbëggeel waaw. mooy xoolal clip bi mu ngi tudd Mbëggeel mooy. namu naa say muraay namu naa say taakaay baby dellu sil yeey yeey bëgg naa la lool xam nga ko jaru nga may sonn xale bi léey sama ci yow xale bi léey bëgg na la lool kaay wër naa la fu ne wax ma fane mm, nam naa la lool bébi kaay war naa la fu ne ci amore soli o mino core amore mio amore mio yeah yeah chéri nam bi fe bi fe bi fe bi fe nani lio nani lie nani lio nani lie anwoni perda nganaaso gili mbarata batumi watu watumi oh baby <laughs> non mais li li mais comme ni kay waxe lu du tire à sa fin. ah non waru dire. <laughs> non waru jex Dakar warul Dakar. allo Dakar Grumnalen bingen leen bi eh, eh, eh. <laughs> euh, l'artiste donc franchement mu nek artiste bo xamanteni machallah macha mu ngi évoluer ci firi rek aduna da ngay firi. tapé xoli xoli no stress. Yo laaj ma bi lan laa ko Non, noo ko tuddee. maa ko laisse les gens parler la caravane passe les gens vont maigrir ceux qui sont pas jaloux vont grossir liggéey ñu doon barke baay xanaa jommee ngeen. waa lii la la ti la. Ah, non mais hier, franchement neexoon na émission ah, bi neexoon na contane mhm. nañ. wa man tamit. wa Allo Dakar ñu ngi lay remercier. wa man tamit maa remercier Allo Dakar bu baax. di wax di wax. Mhm. waaw.